même les les insulteurs euh, gis naa ci YouTube ku ne six the best euh, par contre bala maa fàtte gis naa léegi ci ci TikTok benn commentaire yaa y en am na kenn ku wax ne euh, um xayri faal ñoo bokk ndey ak baay ku xool sama kanam gi yow mi jàpp jàpp ma tur mais dëgg la sama rakk la ñoo bokk ndey ak ndey ak mooy sama mooy c'est mon ñoo bokk ndey ak baay ñoo nuroo kanam ñoo nuroo nu ñuy waxee Euh, voilà duma ci sori nak leneen foofu laay yem ma may nuyu aussi waalo waalo euh, gis naa ko tout le temps euh, mi de xaw ma góor la xaw ma jigéen la waalo waalo mbóoj respect vas-y voilà c'est une personne que j'admire beaucoup il se respecte ouais, ouais, ouais. se respecte de, par sa, de par ses analyses de oui. par son comportement et puis, et puis il a un cœur voilà et moi c'est mon c'est mon grand il faut reconnaître que c'est un très grand intellectuel oui. et puis il faut que Sénégal waaw ku bëgg Sénégal qui est que générosité bi aussi euh, xam naa ci dara. yoo xamante ne quand on était à l'opposition. nee mi ko taal su taal su ba ñu nekkee ba ñu nekkee opposition. waaw moom moom ci ñi nga xam ne dañ ko doon fréquenté ci la bokk. Hmm. parce que boo bëggee am xam-xam bëgg dem nekk un grand analyste. il faut nga jege ko. si nga jege ko pour mën a wax ak moom. politique dañ koy jege parce que mom ses analyses. ba est tellement généreux. voilà du du du maintenant da mo xon waxoon da ngay da ngay wax maintenant sur sur ce ce qui ce qui ce qui est dit et ce qui est ce qu'il a dit. Mm. législative avant législative moy djomay euh, Diomaye président au bord de l'implosion. fi la ko waxee. yow yaa njëkk annoncer parce que les prémices de l'implosion implosion. était là depuis le début. Mm-hmm. parce que aussi le choix de. Aïda Mbodj comme mhm. président de la coalition may ñu ko olof tànneefu Aïda Mbodj waaw comme mu jiite coalition bi mhm. problème la woon du lu anodin ah, la le sale moom moo ko mën a def fii la ñuy gisee <laughs> xamoon foofu ngay génn parce que kaala la <laughs> Guinée Bissau moom moo ko mën a def xool du xool dama tourné parce que am na expérience bi mm. am na taxawaay politique bi am na fitu def ko mm. du dëgg nga ne le sale boulot moom moo ko def te ba mu ko dooree. Mm-hmm. du tey. ba muy retirer ay nit ci groupe bi du tey. Ah. parce que nag ma wax leen ñoom jomaay président man maa ngi ci biir groupe ni diversion la rek ngay def nii. ma wax waa jomaay. Mm. ne leen lay xew ci groupe bi ñun sénégalais yi dañ koy xam. noo koy xamee ku la wax. lii xew ci groupe whatsapp boobu. Ah. ñun sénégalais yi dañ koy xam. am na loo xamante ni jarul wax. Ah. mais politique moom. Hmm. ñoom nañu amee woon ba ñuy nekk opposition ña fa nekkaloon. Hmm. noonu la ñu amee. ñu fa nekkal. Hmm. parce que amul dara lu ñuy réer. ñun dara umbuñu. amul dara lu ñuy upp ci. umb monsieur le lu mu nekkee tey sax am na am na sànq ma ko naan. bul sax sonn donc pour dire pour dire pour dire bi moo ko mënoon def. te tàmbali na ko bu yàgg. ba may wax fii nii day tas. Charles VI bindul première lettre am. dëgg bindu ko. dëgg la je confirme. parce que la Wade ak Moustapha Niass demoon. Hmm. xewoon ca deux mille ca deux mille. Hmm. mooy xewaat fii. mooy dañuy pousse alliés yi. pour ñoom Pastef téye ngir pour pour ah. pour avoir une très forte mob représentativité au niveau de l'émi de l'hémicycle en tant que Pastef seen ce Alioune Tine waxu ko fi woon ak euh, seen doxaa boobu hmm. booy stagiaire bi voilà bi te seen ndaje hmm. boobu nga xam ni hmm. moom la maire parcel waxee la moo xool donc loolu mooy sabab bi dëgg la te dinañ ko gis ci confection liste yii oh, tasaaroo dina am de tasaaroo na ba pare Hum. Pastef de. non coalition Jomaay. non jeex na c'est fini beneen coalition bu bees tàq lay demee élection législative. bu nekk Jomaay président. waaj na ko bu yàgg. te dafa tànn dafa tànn ñum ciy demal. Mhm. te ki ko defal tànneef boobu mooy presidente sa coalition bi. kan. sa bàjjan sa bàjjan. moom ko tànnal kii moo defal liggéey boobu. parce que nag soxlawul ñu newoon ca biir coalition ba. parce que ñoo aussi tekki wu ñu. parfait mais mais quand même honnêtement foofu ils ont raison. non déglu ne. tekki ñu dara kenn xamu parce que pratiquement ñoom meroon bennoo ñoo xabaabal dem ba ca ñoom. dëgg la hmm. foofu d'accord naa ak ñoom. ay ñoom Maître Moussa Diop. ak kii nag. Euh, euh, keneen ak keneen ak keneen ak keneen ak keneen ak keneen. ay yóbbaale ma rek la ñu non ils ont raison quand même. il fallait mu am ku def sale boulot boobu. waaye opposition bi dina bari de kon ndax ñoo bu ñu génnee des merkat ñu génn. ak ca opposition ba. waaw mooy coalition bu mag bay bay waaj tënku. Ah. dina laal Déthié Fall. Ah dina laal waaw ñooy dase ji Déthié Fall. ak ñooñu dinañ def coalition bu dëgër bu am doole. Hmm, ak pur wala ak pur. pour élection législative motax dina metti trop. ba tey ba tey APR nak wa ñooñu tamit day fekk nak mo am le 17. parce que du am le 17 non du am le 17 mom nga ne du am le 17 élection du am le 17. parce que waji dafa def la charrue. avant les bœufs xamuñu nak xamuñu dafa dissoudre fixer date convoquer collège électoral. doog a woote concertation. Mm. te concertation foog mu am. concertation moo waroon jiitu yooyu les incapables ngeen baal les insulteurs. c'est les des incapables rek. mais c'est des aigris. <laughs> waaw dañoo aigri nag. du dëgg. waaw xam nga li ñu wane aigri bi nag. Hmm. pour l'instant, il y' a plus non si y' a deux institutions. ban ak ban. y' a le conseil économique et le haut conseil.

Ousmane jàppaleel Ndiaga wutoo ko poste ndax mi ngi mi ngi yàq sa xew. ndax mm. euh, Ndiaga tey jii mi ngi woon TFM seetaan naa ko bu baax avant TFM chaque jour moom tamit mu ngi doon loolu léegi léegi mi ngi moom la yàq mm. Ndiaga mi moo fi wax ne su ko ah. su ko su ko waxuloon kenn dootul xàmme Ndiaga tamit waaye Ndiaga nag man man ko yéex naa ko xàmmee Ndiaga dama lu wax su taxawuloon ci taxawaay bii mm. ak tot tot bii bii bii ngundu def ah. kenn dootul xàmme Ndiaga mais nag ay wax la njagam kenn ni na pat nii ne perte na crédibilité fi mu ne ma poste ndox acolyte ba nguuda hmm. nguuda fi nga jox port moy moy mooy PCA port waaw waaw kii sa euh, euh, waay port nak la ngeen ci xamul moy kagn ko dugon du ñaga du nguuda de ah. kagn ko dugon da daan ñëw fi fan da daan ñëw fi public jangale kat ba nu mu tudd troisième secrétaire général passé ba num tuddu suñu xarit bobu kan la ci hmm. may may kan

ATEL moom temps yi moom ATEL. ATEL mooy kuréel bu taxaw Ngouda hmm. le grand le grand du port. ATEL ah, mooy kuréel. te moo war a porter le combat. kii kii mooy njëkk si laa. boo a ngeen boo xoolee lexu euh, euh, Ngouda ak lexu euh, saa yu dafa leen ma duplex lexu Ngouda Mbuub yi boo ko nee jàkk méngale ko ak lexu njëkk si laa mi nga xam ne yee lex. ñu ngi ci projet bi léegi ñoom ñoom ñi ngi lekk moom. Hmm. yii leex masaguñu. waaw <laughs> léegi ay surtout. <laughs> téléspectateur téléspectateur yi seetaan yi seetaan public nee nañ. Hmm. soo leen def foto hmm. ci sëñ gund. ngeen jël photo yu yàgg ya. ah ba bu fàtte na nag xam nga nag manqué saa ne xamee ngundu dama ko bëgg nag. non dama ne ñoom ñaar maanaam soo leen jël photo yi ñoom ñaar di leen teg. non photo ngundu avant baaxul nañ jël nañ jël yu yàgg. non non yu ngundu avant. xanaa kon gisoo gisoo gisoo première première vidéo TikTok sëñ gund gis nga ko. My, my, my, my mom doesn't need. Wow. Wow. تبعهم ما تتبع دي دي دوفان ما تتج دي من سن فنو لا يوخني اجي فين جبل ñaar ñi no ño ño ño ñu taxa tok nga te jël ko ara fal ba ata na ñew na salut Eh? na ñëw. Hmm. allo.